bu ñu gisee taxawaay bi président Macky Sall taxaw jamono ji bokk na ci gantal indi mboolem jafe-jafe jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoo di acteur politique yi ngir ñu daal di mën a amal seen i activité mu waree day wundu rek ne kon moom Macky Sall noppiwul ngir daal di organiser élection présidentielle yu 25 février 2024 loolee mooy gis-gisu kii di Abdoulaye Tine di avocat gannaaw rek ba mu xamle ne li waral mu wax lu ni moo di gis ne ñu ne président Macky Sall mu ngi gàllankoor ñi nga xam ne ñoo di acteur politique yi ci jamono joo xam ni mbooleem luy manifestation dañu ko daal di interdire eh, teg ci ta mbooleem luy activité politique ñu daal di ko gantal ci réew mi ci jamono joo xam ne jàpp leen rek ay bés yu néew moo daal di des ngir ñu mën a tàmbale lu jëm ci wàllum collecte soxal lii di parrainage bi waral mu gis ne nag li tax président Macky Sall def lu ni mel ku toog di xalaat ne ak climat politique bi ñu toll nii dinañu daal di mën a amal ay élection présidentielle yaa ngi nax sa bopp mu dem moom maître bay samp laaj ndax lu ni mel bu continuer mënees nañu xaar fi ñu organiser fi ay élection moo gannaaw sax moom ba mu delloo di tontu laaj bi ne moom gëmu ko benn yoon Abdoulaye Tine dellu di sàkku ci diaspora bi ngir ñu daal di occuper assemblée générale bu Nations Unies jëlee ko fukki fan ak juróom-ñett jàpp fukki fan ak juróom-ñeent weeru septembre bi ñu dëgmal ngir rek daal di ñaawlu anamu politique bi nga xam ne kon président Macky Sall mu ngi koy daal di doxee gannaaw rek ba nga xamee ne kon nekkul benn yoon di défendre lépp lu jëm ci wàllum état de droit moom Abdoulaye Tine mu dellu xamle ne bu fekkente ne dafa continuer du aaye li nga xam ne moo di manifestation démocratique fii fii ci réewum Sénégal naka noonu itam daal di confisquer li nga xam ne moo di liberté publique yi sénégalais yi du ñu amati beneen possibilité budul rek daal di dem fi nga xam ni moo di assemblée générale bu Nations Unies ngir mën a woon àdduna wërngal képp ne président Macky Sall li muy bàkkoo mu di sàmmanteek lu jëm ci wàllum àq ak yelleefi doomu aadama yi nekkul benn yoon loo xam ne lu mu gëm la ndax bu ko gëmoon du daal di nekk di faagagal ñi nga xam ne ñoo di askanuk Sénégal ci saa su nekk rek mu leen di teg ay métit yoo xam ne àdduna wërngal képp ñëpp ñoo ciy teg seen gët